jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru juróom-ñett waxtu yi dañu koy tàmbali ak syndicat bi ëmb liggéeykat yi ci kër docteur ak action sociale banque nañu seen yoxoo tàmbalee ko ni ki tey ji grèwu ñaari fan nag lay doon la ñu bëgg nag mooy nguurug Sénégal sàmm li nga xamante ni xaatimoon nañu ko uh, ci atum 2014 di ay uh, xaatim di ay accord yoo xamante ne uh, defoon nañu ko grève bi nag Sénégal wërngal këpp lay doon ci wàllu wér-gu-yaram la ñuy des ak tegub xeer bu njëkk pédiatrie euh, Kouemo ca l'hôpital Fann lañ ko def tabax boobee nag financement bi toll na ci juróomi milliards ak lu tooftal euh, kii di fondation Kouemo moo ko daal di def lëkkaloo ci ak chaine de l'espoir ak jëwriñ ji dénk euh, wàllug wér-gi-yaram centre boobee nag li ko tax a jóg moom mooy taxaw xale yi nga xamante ni dañu amee feebaru xol loolee ñu def ko ci teewaayu première dame bu senegal di Saprera. La une opération. niki Sophie fanweeri junney gone ci senegal ñu ngi dund ak feebaru cardiaque yu metti paj mi di laaj yenn saay sax évacuation ca réewu tugal yi waaye léegi rek jafe-jafe yooyu jeex ci maladie ak seeni bokk ab centre cardiopédiatrique bu amul fenn ci Afrique de l'Ouest la ñu fas yéene tabax ci CHU bu Fann hôpital boobu ñu financé ko ci lu toll ci 5 milliards de francs CFA fondation Cuomo bokk si ñu yembal liggéey boobu jàpp ne projet humanitaire bu am solo la. ñun ñëpp dañoo war a booloo boole suñu doolee ngir bépp tolof tolof moo xam jàngoro gu mën a dal ab xale ñu teggil ko ko loolee nag dafa laaj ñu liggéey te taxaw nañ temm ngir nekk seen wet waaye bu leen jàpp ni lii kat ab projet politique la déedéet ab projet humanitaire la maanaam dañu koy def rek ngir dimbale nit ñi loolee moo ñu ñor. chaîne de l'espoir di beneen partenaire bu ci dugal un milliard cent millions de francs CFA moom gis ne du benn yoon ay gone di faatu ndax feebaru cardiaque rawatina bu fekkee ñàkkum pàcc moo sabab faatu googu. on nous demande souvent pourquoi comme ça pour les enfants. dañuy laaj ñaareel lu tax ñuy ñëw di jàppale euh, tuutànk yi waaye jàppale ni musiba la euh, xale goo xam ne ni day euh, faatu. Euh, ci lu jëm ci cardiopathie ñun chirurgien euh, dañoo jàpp ni euh, suñu devoir la ñu bokk ak suñu xam-xam ak ñëpp te taxawu xale yi ngir faj leen loole nag jafewul benn yoon ci ñun. Sénégal am yéene wu taxawal système de santé bu efficace te askan wi yépp mën cee faju ni mu waree centre cardiopédiatrique bi dina dooleel wérgu yaram rawatina bu xale yi. avec beaucoup d'intérêt ce centre pédiatrique ce centre bi ñu daral tey nag centre bu ñu amal solo la ndax day faj wàllu cardiopédiatrie li leer ba leer mooy dina gën a néew gune yi nga xam ne dinañu jóge fu sori di yëg ay charrette ngir mën am hôpital bu ñu fajoo ndax président li mu bëgg mooy dëgg bu nekk am ambulance médicalisée ci Sénégal voudrait qu'on puisse avoir des ambulances partout dans le pays. centre cardiopédiatrique moo dina am capacité wu opérer juróomi téeméeri gune at bu nekk ñeent junne gune dinañu leen fa mën a consulter centre boobu am na plateau technique wu fukki lalu réanimation fukki lalu hospitalisation fanweeri lalu poste hospitalisation ñaari salle d' opération chantier bi nag dina pare fii ak février 2017. Euh, Dissa Prera président bu comité d'honneur euh, bu centre boobee di Kouemo moom nag féddali na euh, kóllëre gi nga xamante ne nii am na ko ci diggante xale yi waaye tamit cër bi nga xamante ne jox nañu ko ko euh, ba daat koy tab loole loole yëpp rek di wane ni kon lëkkaloo am na ci privé bi ak public bi ñu teewlu ay kàddo moom PCA bu groupe Futur Média yu Ndour ci micro Dissa maa ngi wax fii di féddalewaat sama engagement ci xale yi di féddalewaat sama engagement pour que Sénégal bi nga xamee ni moom la ñu taxaw tey mu tudd Sénégal émergent bi nga xam ne dafa war a dem ci domaine yu nekk rawatina domaine yu santé maa ngi feddaliwaat sama engagement pour wax ne que dinaa taxaw lépp loo xam ne mën naa ko pour mën koo def personnellement ànd aussi ak samay réseau ak samay xarit pour que ñu jàppale wàll wi nga xam ne mooy wér-gi-yaram pour mu gën a jëm kanam ndax Sénégal def na ci jéego waaye doyul leneen ci xibaar yi di kuréel gi kuréel gi ëmb marchand ambulant yi nekk ca Petersen ñoom nag nee nañ tey daanu porter plante clamé ki nga xamante ni moom mooy maire bu dakaar Plateau yóbbu ko ca yoon loolee la ñu wax ndax dañu bëgg ñu jox leen ay ndàmpaay ci lakk gi nga xamante ni amal nañu ko lakk googee nag mu amoon ci ay bis ñu weesu ba ñu yàqule ci lu baree bari ñoom marchand ambulant yooyu di wéy di laaj ndàmpaay ñoom nag kii di maire bu Dakar Plateau la ñu teg baaraamu moo tax sax ñu ne jëmale ca yoon maire ba ca wàllu boppam di Alioune moom it àdduna ci nee na amul lenn loo xamante mën nañ ko koo jiiñ ci mbir moomee daal dinay dégager responsabilité am tey ci ngoon sax euh, dina janoo ak ñi nga xamante ni ñoom ci ñi nga xamante ni kon ñoom ñoo bootu ci kuréel googee ndax dafa bëgg a ci lu ni mel loolee nag euh, dina ko def nag ci ay firnde yu leer yoo xamante ni dina ko indi euh, ci ay preuve ñu des di wax ci loolee ba tey ak ñaareelu adjoint bu maire bu ville Dakar moom Moussa moom nag daal yëkkate ay kàddu nee na nag lu ni mel nguurug Sénégal moom moo xoole ndax dafa daal di jël lépp rek jox ko dakaar Plateau te Dakar Plateau mënta taxaw ci moom kenn ci jafe-jafe marchand ambulant kon tey lu jiig njaak nguurug Sénégal mooy njaak ñu teewlu ay kàddu ak Mame Birame Diouf. Nous avons fait des investissements nous avons acheté des à 3 milliards 2 milliards 1 milliard. nous avons investi am na liggéey gu am solo gu ñu def jëmale ko ci marchand ambulant yi ay investissement lu weesu benn milliard ak it lu ëpp sax ñaari milliards yoo xam ni def nañu ko ci Kermel lépp ngir ñu am toogaay bu baax jàppandal googu sax dañ koy yombal ndax ci diiru yàgg mën nañ di fay. cantine yañ leen di jox li am ba am te leer mooy nag état bi tàmbali woon na di gunge mairie bu Alioune Ndoye ci commencement ba ba nga xam ni nag ba ñu àggee ngir mu sotti lépp état bi rocceeku loole mooy dëgg te loolu lañ ko war a wax ñun nag lépp dañ ko fekkee suñu kanam la présent on était là donc c'est ça qui est important et c'est ça aussi qu'il faut dénoncer Euh, Sénégal euh, mënta sokkaliku moom euh, dong te boolewuñu ci li nga xamante ni ñoom ñooy gox goxaan ni loolee nag tukkee ci élus locaux yi nga xamante ni bokk nañ ci fukk ak juróom-ñeent commune d' arrondissement bu région bu Dakar yooye kàddu nag la ñu yëkkati la ñu bëgg nag mooy ñu gën leen a dooleel waaye tamit jox leen ay fonds yoo xamante ni dina leen gunge ci liggéey bu ñu soobu ñoom collectivité locale yooye amaloon nañu nag ab assemblée générale di ndaje mu yaatu moo xamante ni ñoom lu mooy li nga xamante ni moom mooy ñaareelu pàcc bu acte trois de la décentralisation dañ ko war a gën a jëmmal ndax loolee bokk na ci liy dooleel seen liggéey man Mame Birame Diouf mënuñu nangu benn yoon ñuy taxaw di leen di laaj ñuy fay ay salaire personnel rawatina personnel yu ñu redéployé ci seen commune yooyee mbala sax taxaw di xool communes yi ñuy jël ci ñoom lu jëm ci taxes yi électricité mbala sax patente yi doon ay poñ yu tukkee ci acte 3 de la décentralisation te it ñu war ko xoolaat loolee la élu yi bokk ci 19 communes yi nekk ci Dakar xamle. Sénégal pour mu développer il faut que développement bi équitable. parce que tey bu dee euh, nit ñi di wax Dakar rek moo développé ñeneen ñi développé ñun sàkkuñu loolu dañu ne Dakar li mu yor yokk leen ko waaye ñeneen ñi la ñu soxla nañu fexe ñu am ko donc nañu créer quand même solidarité entre les collectivités locales créer benn fonds de péréquation boo créer fonds nag il faut nga wax fonds boobu lan moo koy abondé lan moo mooy ci dugal xaalis ñu def ci ay propositions ñu ne taxe sur l'exploitation minière mën na dem foofu ñu ne takk sur les opérations de transfert d' argent mën na dem foofu. Moussa Sy ak i gaayam jàpp ni fañ jëm dara leeru ci ci liggéey ga ñu amal ci seen commune yooyee fu mu toll nii mbir yi dooy na waar. nga liggéey fanweeri at ak juróom retraite à 60 ans nga toog ba léegi fayoo koo sa retraite ndax loi boo xam ne une loi scélérate une loi qui a des insuffisances sociales terribles non benn hôpital wóoluwul maire yi toog fii parce que nee nañu mënu leen fay salaire ngeen bëgg ñu leen signaloo ay loolu la ñuy wax man en tout cas man loolu la ñu ma wax benn hôpital moo nangu moo ma tontu CTO la lu ma wax mooy da ngay joxe 4 millions en liquide en caution ma ne ko mënu ma ko la loi m'interdit ça ngir nag Sénégal suqaliku loolee jaarle ko ci PSE ñu jàpp ni politiku état bi war na bàyyi xel bu baax ñoom seen bëgg-bëgg ak seen toogaay meeru Parcelles Assainies bi di ñaawlu koppar gu néew ga état bi di leen di jox ñoom commune yooyu. tey fonds de dotation yi ñu daan jot mu daan jóge ci ville de Dakar daan nekk 2 milliards 4 tey cinquième bi mënuñ cee jot acte 3 bi lam ñu digoon gisuñ ci dara bu fekke ne yemu leen population yemu leen superficie. yemu leen chiffre d'affaires yemu leen développement yemu leen problème mairie bi géré milliard ak ki xam ne géré sax 200 millions nga ni tey ñoom ñu am ay revenu kooku caaxaan la. ngir nag askan wi am dund gu mucc ayib élus locaux yi dañoo jàpp ni nguur gi war na xoolaat bu baax doxalinam copp soppi ko dàqul it amal ab plan d'action goo xam ne nii dina ko taxawal te bu jotee askan wi yëpp dinañ leen ci jàppale. Mame Birame Diouf euh, loi Sada Ndiaye daañu ko dekkalaat ci ay bis ñu ñu mal euh, lay doon mandat euh, président bu assemblée nationale dinañ ko jëlee ci benn at yóbbu yóbbuwaat ko ci juróomi at ya mu nekkoon loole nag Moustapha Diakhaté njiital groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar ne lu jaadu la ndax dafay taxaw rek ngir dooleel li nga xamante ni moom mooy pencum ndawi réew mi waaye tamit lu jëm ci wàllu démocratie da koy gën a jox doole Fatou bintu Conté Mardien mandat président assemblée nationale bi nga xam ne benn at la woon dañ koo fas yéene delloowaat ci juróomi at ya mu nekkoon mu mel ni daal loi bi ñuy wax loi Sada Ndiaye dañ ko fee fas yéene jële député bi di Moustapha Diakhaté di président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar jàpp na ni sax li tax ñu bëgg a réviser loi Sada boobu dafa am ay poñ yoo xam ne danoo baaxul ci bile luwa waaw xam nga loi boobu dafa am lu mu lu ko taxoon a jóg dafa bokk ci loi yu bon yi nga xam ne moom la fi régime Abdoulaye Wade bàyyi woon li ko taxoon a jóg rek da euh, daane Macky Sall loolu rek moo ko taxoon jóg. Euh, ñun bi nga xamee ne toog nañu ñu ñu am digal jot ci ne dañ koy supparñi mooy lan mooy durée mandat président de l'Assemblée nationale bi nga xam ne dañ ko defoon benn at. léegi dañ koy bàyyi mu mu nekk durée bi législature bi. yeneen po it danañ ko xoolaat ci loi boobu ngir gën a mën a defaraat li nga xam ne moom mooy texte assemblée yi léegi. duñ yem foofu ndax boo xoolee règlement intérieur bi da ci am ay wuute yu am ak lu mel ne code électoral ak constitution bi te loolu euh, euh, république nangu ko. koy incohérence yooyu yëpp dañ ko bëgg a dindi. mu nekk revanche ci président Macky Sall Moustapha Diakhaté ne déedéet du loolu la leen ci wund mooy danoo bëgg li nga xam ne moom mooy assemblée nationale ñu moderniser waat ko. du revanche parce que revanche taxul na jóg day loo xam ne dafa baaxut te lu baaxut moom li gën mooy dindi ko. ndax ñi ko defoon sax xam nañ def jubluñ ci loolu baax defuñu ko woon ngir dëgëral démocratie defuñu ko woon ngir jox gëdd assemblée nationale. Macky Sall nag li nga xam ne moom la sénégalais moom la ko sénégalais sas moom la sénégalais xaar ci moom. mooy benn mu dëgëral démocratie benn mu dëgëral institution yi mu ne assemblée nationale. danoo bëgg lu neex Moustapha Niass kii di président assemblée nationale bi lee ak loi boobu ñu bëgg a teg kii di Moustapha Diakhaté ne déedéet loolu lépp amu ci yoon. defuñu ko pour président Moustapha Niass institution bi lañ koy defal parce que président assemblée nationale mu nekk tey président Moustapha Niass ëllëg keneen dana ko doon. danoo jàpp ne bu fekkee yow yaa nekk deuxième personnage de l' état maanaam bu président Macky Sall jàllee yaa ci tegu maanaam ci rang protocolaire bi su fekkonte ne président de l'Assemblée de la république dafa dem mënatul nekk président de la république yow yaa ñëw toog ci place am ku mel noonu dañ ko war a jox gëddaam Euh, Fatou Bintou Konté muy loi boobee kon euh, ñeel Sada Ndiaye ñu fas yéene ko fi dindi ba mu set wecc euh, jël mandat bu président bu assemblée nationale jëlee ko benn at delloowaat ko ci juróomi at dañuy tàbbi ci xibaaru biti réew ak groupe djihadiste libyen bi di Ansar Acharia moom nag daal dinay weddi ba set wecc faatu ki nga xamante ni moom mooy Mokhtar Bel Mokhtar moom moomee nga xamante ne nag kon moom mooy njiitu djihadiste yi groupe ba nag daan na koy weddi mu set wecc jamono yi ci fàttali dafa am ab song boo xamante ni Amérique daf ko amuloon daal di koy euh, teg kon ci kaw ay groupe djihadiste ba ñu waxoon ne kookee faatu na waaye euh, groupe djihadiste bu libi bi daan na koy weddi ba mu set wecc xibaaru biti réew yi dañu koy jeexalee ak Jeb Bush mi nga xamante ni daat nay fésal nag moom ne noppi na ngir doon euh, candidat ci jongante faluk njiitu réew yi ca Amérique loole ca atum 2016 moom nag mi ngi dafa newoon tekk tekkaaral waaye tey na yëpp féddali ab li nga xamante ni moom mooy bëgg gëm moom moomee nekkoon gouverneur bu Floride mbokk yi kon lii euh, moo fi gënoon euh, fës ci xibaar ñu daal leen bàyyi ak Pape mu wéy ak yéen ci seen émission yeewu leen.